mi mbëkk mi ba tey mbëkk mi ba léegi wàññeekuwul dafa sax yokku ndax atum ren bi dafa yegg ci dayo bi nga xam ne kenn xaaru ko woon ba tax na jëye yi di yokku président Macky Sall ci discours bi mu doon amal ci journée des forces armées di xam le ne dinañ amal ab programme bu rëy ngir xeex mbëkk mi programme boobe nara yokk ci politique yi nga xam ne nguuru Sénégal yàgg na ko def ñeel mbëkk mi waaye nag ba léegi juruguñu dara suñu sukkandikoo ci ab njàngat bi nga xam ne ñii di waa football Sénégal def nañ ko ñu ngi xam ne ne 2005 ba léegi nguuru Sénégal mu ngi amal ay programme ngir xeex mbëkk mi ay programme yi nga xam ne ñi di waa Union européenne ñoo ko si jàppale ak réew yu ca bokk lu ci mel ni réewu France bu Italie ak bu Espagne naka noonu ñuy xam ne ne diggante 2005 ak 2019 nguuru Sénégal def na lu toll ci ñaari téeméeru milliards ci suñu ay koppar ci wàllu wi loole nag ngir xeex départ yi te itam fexe ba contrôler frontières yi ak itam gën a ñoŋal condition socio-économique zone yi nga xam ne foofe la ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ci mbëkk mi di jógee diggante atum 2012 ak 2015 ñu yokk ci lu toll ci juróom fukki milliards ci suñu ay koppar diggante 2015 ak 2019 def nañ ci itam lu toll ci téeméer ak ñaari fukki milliards ci suñu ay koppar waaye nag investissement yooyee teewul ñu am lu ëpp fukk ak juróom benn junni doomi aadama yu jóge ci Sénégal jaare ko ci géej gi gi dem ba Espagne Italie ak Grèce diggante atum 2016 ak atum 2019 loolee di wane ne plan REVA ak Goana bu wadd ba programme xëyu ndaw yi bu Macky Sall nguuru Sénégal ay milliards yu bëri la def ci lii di mbëkk mi waaye mbir mi day mel ni luy gën di jéggi dayoo ndax nguuru Espagne ñu ngi xamle ne lu ëpp fanweer ak ñaari junni doomu aadama yegg nañ ci Espagne ci atum 2023 te nag juróom-ñaari junni yi doon ay sénégalais ba tax na grande offensive bi nga xam ne nguuru Sénégal annoncé nañ ko am na solo lool ci jamono ji waaye nag ñuy ragal rek moo mel ni programme yu weesu ak lu ci mënti am li leer ba leer mooy vague yi moom tereetul benn yoon ñi di candidat yi dugg ci géej gi.